man de maa doon Cheikh Aïda Diallo def naa ko muy sama jëmm ji loolu yi day bu ma ci dellu day mel ni nag du maa jëkk a wax loolu Sëriñ Tuubaa daa waxoon ni daa wax ni Sëriñ Saaliw moom mooy Sëriñ Saaliw Serigne Saliou dikk ni may moom te mooy man ma dikk ni Serigne Cheikh Aïda Diallo mooy man te may moom loolu dafay rappeler origine mu boobu ba ñëpp mën a dégg li ma wax ndax commentaire yi bari na ni ñu koy commenter bari na coow li bari na ñu ngi bëgg a yàq sama taalibe yi Serigne Touba ba mu ne mooy Serigne Saliou teewuloon daa amoon ay cheikh cheikh bu ci ne da ngaa jël sa initiative bopp du jouer sa bopp néew ma indépendant nga ndax ñëpp ci tubaa Tuubaa la ñu aju waaye ku ci ne amoon na doxinu boppam boo xam ni ci Sëriñ tubaa rekk la jëm loolee Sëriñ Tuubaa waxoon li mu wax ni mooy Sëriñ Saaliw waxul woon ci jamono mu nekk ñëpp woon ko ginnaaw topp Serigne Saliou da ko waxoon ngir ëllëg ngir la postérité ngir wone ni moom du fi jóge loolu ba ko waxee taxul woon Serigne Saliou jóg doxe di mooy Serigne Touba xam-xam la loolu na ko ñëpp fàttaliku bu ma nee may Cheikh Aïda Diallo yi man may moom waaye gaa ñi man maa ngi dund xanaa dañ ma woon ginnaaw topp keneen ba dégg naa ñenn ci seex yi bëgg naa leen topp leen Serigne Cheikh Aïda Diallo waxuma loolu waxuma loolu ku ko comprendre noonu xamoo li ma wax Aïda Diallo potentialité la boo xam ni bu ma naa war moom la ci a gis waaye waxuma ma nekk jamono ñu mel ni nekkatuma yéen xanaa da ngeen maa bëgg a suul te deewuma waxuma ko kenn ku ma def seex doxal sa ceex commentaire yi nag bari na dama bëgg nit ñi noppi commentaire yi bari na nit ñi nañu noppi waxluwuma kenn que chacun ait sa propre compréhension de ma ku nekk na dégg ni ma waxe te jàpp jàpp rab mais waruñoo di ko suggérer keneen ku ne la nga xalaat yaakaar ni loolu rekk la nga bëgg koo imposer ñi ci des noppi leen ndigal laagoog bëgg su ma ko dégg nag benn commentaire yéenay wax waaye Serigne Cheikh Aïda Diallo ma def loolu moom amu boobu esprit bu ko amoon maa ci cay jële léegi léegi léegi bàyyi leen wax ji loolu juj la dama ko wax ngir ëllëg waaye sama dooma ngi joo xam ni teel na may wax waaye mënta ñàkk moom mii na ngeen xam bi gërëm naa ko sant naa ko te maa ngi leen di yëgalit ni loolu yox porte parole xoma luy porte parole sax waxi tubaab la waaye na xam ni fu mu teew maa fa teew na ni fu mu teew maa fa teew lu mu wax maa ko wax wóolu naa ko man mii fi ma toll lu ma bëgg a lijjanti sax ci si moo koy def te lu mu def mu neex. waaye yow boo bëggul a doon ku may doon dama ni yow yow te nga wii rek moo yow boo dee sam taaw boo boo bëggul nga doon ma ku may doon. jërëjëf man daal Thioune sant naa la wax ji wax ji mooy sant naa la. cant goo xam ne maa ngi koy seereel sama bokk yi ma àndal di ko seereel sunu bokki taalibe yi